La ilaha illallah La ilaha illallah Assalamu الله السلام عليكم ورحمة الله di جولي دي yi تالي ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara tay jital ci nuyu bi ak siyaar bi Cheikh al muntaha Mbacké di ñaan suñu borom yagal ko fi lool te me koy naka nonu la ñu nuyu mourid bu mag bi muy Serigne Amdi Modou mbernafal di ñaan suñu borom yagal ko fi lool te me koy wér ñu ngi nuyu sunu buntu ci yoon muy Serigne Mortala imu Cheikh Abdou Is Fall di ñaan suñu borom yagal ko fi lol tamé ko gër di nuy Serigne Abdou rokhay Fall mi fi togal Serigne Mortala mu mag ma diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol tamé ko gër di ñaanal mbolem buntu ko Serigne Mortala yépp rek ak njabot gi rek suñu borom yagal leen fi tamé nak wëru di ñaan ci réew jamm di ñaan ci réew jamm di ñaan ci réew jamm ci barke Serigne Touba ñi ngi assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ginaa bu leen nuyoo leen di wax ne ñi ngi fii tey Touba Palen kër Serigne Mortala and ko ci Lampa leral Touba ak bépp site rek bu fi teew fas yéene eh, yàkkali liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyub Serigne Touba Khadimatoul Rasoul liggéeyub maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baay Mouridina tey nag bu ñu taxawee fii rek war nañ fee taxaw ndax tey bu ñu juumul la fukki fan ci weeru koor bu nee fukki fan ci weeru koor ne xel yëpp day dem ci kër sëñ Mortala waaye xel yëpp day dem ci kër Cheikh Abdou Is Fall waaye xel yëpp day dem ci buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp rek ndax eh, lii nga xam ne si mooy jébbale ndog yi nga xam ne Serigne Mor Talla Fall mi ngi koy def chaque fukki fani koor gi waaye di ñaanal wasilaam bu baax wi Serigne Bada Fall moom la ñu waroon a jiital suñu borom yàggal ko fi di wax ne daal tey ñu ngi ci kër Serigne Mor di waajal liggéey bu rëy nag muy jébalab serigne mortale bi nga xamné ci mom lay def chaque année ci fukki fan yi di ko jébal kilifaam gu bax ga serigne Bada Abdou Assis Fall mi tok di ko ñaanal suñu borom yagal ko fi tamé ko wër ba ñak ko koo waye ñi ngi taxaw ak ci plateau bi serigne mam gor bu lampa leeral ti ba Touba di ñu taxaw ak serigne Ibrahima Diaw ak serigne Bada ndaysan géwalub serigne Touba géwalub mam Cheikh Ibrahima Fall lampa Baal Mouridina moom bu waxé dañ koy déglu di ñaan suñu borom kattanal ko ci barke mam Cheikh Fall ku déglu discours dembam bi rek xamné war nañ koy déglu bu baax baax serigne mam gor mu mel ne de Serigne Mor Talla Fall suñu wasila suñu lépp tey eh, day jébbale ay kumteem ci wasila bu baax bi Serigne eh, Bada Abdou Assis Fall mi nga xam ne si chaque année ci fukki fan yi la koy def nga gis bis bi ni mu taaroo mboolem ñu nekk Dakar ñu nekk Kaolack ñu nekk Gambie mboolem bi réew mi rek ku ci taalibeem foo war a nekk rek njëw nga. mbokki jullit mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu eh, fi ñu leen baaxoo nuyoo ci seen site bi Lamp Fall leeral tubaa waye tey ñu ànd kook euh, suñ mbokk yi nga xamni ne ñoom lañ bokkal kër di wa daari Serigne Bada waye mm-hmm. waaye TV ci euh, njital soxna Awa Touba mm-hmm. waye ñu siyaare suñu Ibrahima jaw bu baax baax baax suñu jëwri mm-hmm. waye soxna Jee Touré ñu ko ziar baax bokk ci daari Serigne Bada euh, soxna mam diara ñu ngi di ziar baax di leen jaajeufal mu melni serigne sëñ comme ni nga ko waxee mu melni tay ji la fukki fan ci wéru koor di bis bi nga xamanteni ci la Cheikh Mamar Talla Fall ak nam Serigne Bada mu Cheikh Abdou Cisse tan ci ci biir koor gi di ci jëbe seen liggéey mu melni ni nga ko waxee Serigne Cheikh Mor Fall mu Cheikh Abdou Aziz day jébbal ab liggéeyam euh, jëwrinam Serigne Bada Fall wëlbati ko àndaat ak moom ñu dem jébbal lépp Serigne Abdou Rokhaya Fall mi nga xamante seen wayjur tey euh, mu mel ni nii mbooleem fu mbokk nekk mbooleem fu taalibe ne mbooleem fu da nga ñëw ànd ko ak ñoom seen wayjur wu góor seen wayjur yi nga xamante ni moo fi nekkal Cheikh Mamar Talla di Serigne Abdou Rokhaya ñu ngi koy ñaanal suñu borom di lako fegal feeyagal lu tam ànd ku wër war xamna kaddu yu du gudd ndax dafa melni tay ji mom da mel dañu nekk ci ñaari boor ndax dañoo fété fé ci waañ wa waaye tamit li mën dañak waye waaye Ibrahima kon daal niñ ko waxé non la bismillah bi daal nañ amuñu lu dul ndax lepp lo xamanteni ni eh, liggéey la bo xamanteni tukké na ci taalib ci sëriñ si ndax liggéey bi nak eh, Cheikh mamour Tall dako and ànd ak mbooleem rakam yépp nak commencé ko ci sëñ Xaadim sëñ bou salam ba ci ki gën nekk bon bi sëñ sak eh, Baye sak ñom ñepp kenn ku ci nekk liggéey bi taxaway bi nga ci wara taxaw taxaw nga ko kon xam naa ne wàcc kàddu yi rek jox suñu jóori sëñ Ibrahima Diaw bu ko defee mu doxal ba ci kanam mu mel na ñu ngi fii si plateau bi sëñ Aline Badara Sène di géwlu bu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp soxna Dieye Touré bu daayira Serigne Bada mu sëñ Abdou mu mel ne noo ngi ànd ak Firdawsi TV soxna wa Touba waaye daayira Serigne Bada ak Lamp Fall Leeral Touba mbokk yi nga xam ne ñoo ñu topp si réew mi ak si bitim réew mu mel ne ki bis bi day bis boo xam ne day bis bu spécial bis bi nak euh, day lo xam ni euh, Serigne Cheikh Mor mu sëñ Abdou Cissé moom moo ndax ko xol njabotuk sëñ bare ndjay nga xam ne tey kër sëñ Mor Talla bu don tay dañoo tek ak fetal di dor njabotu sëñ bare ndjay ku njëkk engagé ndax lolu la seen mam ja won nak sëñ Mor la tay ji sëñ Mbacke ndjay mi fi nek di xalifab sëñ bare ndjay taxaway bobu la amat ci bir keur Serigne Mor la fal euh, mu melni fi ñu nek nak tay di pakku Serigne Abdou mom moom sëñ nga xam ne liggéeyub sëñ bi ginnaw sëñ Sidi Euh, doxal nako ba mbollem ko xamutone seigne Mortala xam nga kan moy Cheikh Mortala Fall kon tay ji buñu nu waté fi nga xam moy fukki fani koor gi yalla dogal Serigne Cheikh mort wara jël ay addiyam jébbal ko magam ju bax gi fi nek muy Serigne ali Fall mbor di Serigne Bada mu Serigne Abdou Cissé boo gisee nag des fois suñu maam góor ma naan Serigne Aliou Fall mbor moy ko magni lañ doon dundal démb barki démb dañ ko war di faté xalé tay yi ndax tay ji bëri na si taalibe yoo xam ne tey boo leen Serigne kan lañ ko tudd xamuñu ko dessa may ñu waxe yenen tour mais li ëpp solo moy li seigne Moussa Mbade wax ne euh, buy tuddu seigne Abdou rokhé faaw mu ne seigne Ablaye Fall Ndar ngir ñi xam ne seigne Ablaye Fall Ndar mom Cheikh ibrahim Fall Lamp mom lañ ko tuddé tay ji nak seigne Bada seigne Abdou Si mi nga xam ne seigne ali Fall mbor lañ ko tuddé mu fas tay and ak rakam yi nga xam ne ñom la bokkal seigne Abdou Sis ñu fas jël seen ndog yobbu ko si seen wayjur wé nga xam ne moy seigne Abdou Fall rokhé di khalifa seigne Mortala waye di ñaanal baax nag Dam Abdourahmane Fall euh, ci taxawayam ci bir kër gi seigne Abdou Si nekk mboolem njaboot gu gi tey jii moom day bis boo xam ne benn bis la si biir bis yi ndax léegi nii rek eh, bi ñuy maam góor di wax waaye daayira Jazbul Murid seeti Cheikh Ibrahima eh, wuy si nañ si Cheikh Mor si liggéey bii nga xam ne moo ngi koy liggéeyal way juróom bu tedd wi waaye magam ju tedd ji waaye ñu feggoog soxna jee moom it xam naa ne dina sékkati ay kàddu ndax it day koo xam si ni day jàmbaar te bëgg liggéey bi lool waaye sëñ Bada lii mooy yoon jërëjëf sëñ Ibrahima ñu ngi sant yàlla bu baax ñaan bu baax sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu te wér ba mun naal sëriñ Tuubaa mu yeggale ko waye sëñ di Fall mom sëñ Modou Mbend mom mi maam Cheikh Rahim Fall ci kaw souf yalla suñu borom guddal aw fanam ci wéral ko waye non la ñuy ñaanale mboolem ko sol saw dal rek te l'islam ñor la ñoo ngi ñaan yalla su taxawaay yàgg tey nag dañoo nek ci pak bo xamni do wax ni pak bu nu barkel la moy pak bo xamni ni pàkk Abdou Assis Fall la mom sëriñ Mortala Fall mom Cheikh rahim Fall tay fukki fan yi bu accès sun xel ñun ñëpp day massa dem ci ndog yi yi jóge keur Abdou Assis dem keur Mortala lol nak liko waral moy ñoo ngi sant bu baax serigne Bada Fall di ñaan yalla taxawayam yalla na yag yalla na yalla jag jité njabatu Cheikh Abdou Aziz Fall gi nga xamni ne top ci ginaawum Cheikh Mor nak mom day wax ni tubaarkàlla ma sha Allah ndax day mbàkki di Fall waye jëfëm ci yoon wi motax tax mboolem waa Jazbul Murid di sëti maam Cheikh rahim Fall yi nga xamni ne bok genn kurel gu len lekkale ñom ñep ñu ma fi lol nak liko waral moy tangam luwul dara jataay boo dem déetub maam Cheikh Ibrahima Fall boo demee fekk fa Cheikh Mor wala nga fekk fa jëfam loola nag li ko waral moo tax tey mboolem ku mu bokkal Cheikh Ibrahima Fall ten sëtoo ci Jazbul Murid di sëti Cheikh Ibrahima yi ñu bokk leen lu mënta séddoo ñoom ñëpp ñu mën ko fekk si fii ndax tey jii ñoom bu nu bàyyi ay itte ñëw ci moom ndax tey ku ne xam ne ku di Baye Fall tey dangay ngay togg ndogu waaye nag bu nu mënee bàyyi seen i ndogu ñëw fekk Cheikh moor fii ànd seeg moom liggéey bi loolu lu ko leen Cheikh Mor ji kon ñoo ngi ñaan Cheikh Mor liggéey bii muy jëme ci magam ju baax ji yàlla na ko yàgg jëf ñu ko ànd ak moom sama jëwriñ ju baax ji dafa wax am solo ñoo ngi ñaanal bu baax sëriñ Mbacke Ndiaye mi nga xam ne si mooy xalifu sëriñ Bara Ndiaye sunu yaakaar tey ëllëg sunu borom guddal aw fanam day jàmbaar lool yoo xam ne ko xool ci moom waxuma dara waaye da ngay daw te sëriñ Bara tubaarkàlla macha allah alxuraan jëmu ko diina jëmu ko lislaam jëmu ko ak bokk jëmu ko foo ko fekk mi ngi ci alxuraanu karim moom laa gis ci koo xam ni waxtu wu jógee fii jëm Ndakaaru bu ubbee kaamil bi buy départ kaamil bi la koy xatma kooku mooy sëñ Bara mii mu sëñ Abdou waaye fu mu toog it xasidaa koy wétli ak tur yàlla kon kooku lu mu taxawal am na rafet na njort ni dana taxaw dana dëgër kon ñoo ngi ñaan yàlla yàlla yàggaleel ko li ci des nag mooy ñun ñëpp ñu xam ni buntu kër Serigne Cheikh Mor Talla Fall benn buntu kër rek la ndax wax naa ko bërki demb rek buntu kër Cheikh Ibrahima Fall fukki buntu kër la ak benn boo ci boolee buntu kër Maam Sali Fall mi fukki buntu kër ak ñaar ndax Maam Sali Fall ak Cheikh Ibrahima Fall kat ñoo bokk nday ak baay seen ñaari waajur ya kon ñoom ñooy bokk lépp ñoo bokk di yëkkandoo ñoo bokk di dóorandoo ku ne xam na yi tamit xuru mbàkke la daan tey jii boo nee salaamaaleykum fee ñu yóbbu ndog ya bu àggsee da ngay dégg ñoo xam dañuy laajte naan nan ma jox ci boole xuru mbàkk yi ma ci a am moo ma gënal loolu nag li ko waral mooy pas-pas boo xam ne da daa yàgg ci kër gi ak itte joo xam daa yàgg ci kër gi seen lépp ñu jëmale ko Serigne Touba ànd ko yar ak taalibe tubarkàlla macha allah daal ñoo gi ñaan yàlla taxawaay bi yàgg di ñaanal bu baax sëñ Bara mii ni nga ko waxee léegi ndax man mii taxaw buntu kër bi sob naa ci lool waaye tey laa xam ne sëñ Aliou Fall Mbor lañ ko tuddee loolu lu mat leeral la ndax mag ñi bi nu fi nekkee don don doon benn di yëkkatoon doo di don. ku ne xam ne sëñ Aliou Fall Mboor ak Serigne Mortala Fall ñoo bokk lépp soxna Fatou Diop sayre leen jur kon nag ñooñu mën noo tàqalikoo kon buntu kër bii mooy buntu kër sëñ Cheikh Fall Mboor mooy buntu kër sëñ Mortal ak sëñ Abdou Rokhaya mooy buntu kër sëñ Bada benn jóge démb ñu doon jébale jébale bu am solo gi kon ñoo ngi ñaan yàlla taxawaay bi yàgg di ñaan bu baax nag euh, suñu site internet yi nga xam ni danoon danoon amul lu dul ñoom suñu borom dimbali leen ba seen yéene yegg ndax Lamp Fall leeral Touba ñoo ngi koy ñaan yàlla suñu borom dogal mu gën a yokk sëñ Bada mooy ñoo ngi ñaan yàlla mu gën a yokk kon foofu rek la ñuy wàcce suñu kàddu ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom dimbali nu ñu woor ci jàmm war ci jàmm liggéey bi Cheikh Ibrahima Fall mi ko moom nangul ko boppam joxal nu ko boppam Serigne Touba Serigne Touba àggale na ko ci liñ bëgg lépp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf kon bu ko defee ñoo ngi sant mbooleem mbokki taalibe bi yi nga xam ne si ñoo teew ci bis bi ak kaddu yi nga xam ne jot nañ ko see jotal muy Serigne Bada Sène mu Serigne. geewlu maam Cheikh ibrahim Fall lambay Baye di sante Serigne mam gor bu lam Fall leral Touba Serigne ibrahim Diaw Diorin di ñaan suñu borom li nga xamne Serigne Mortala Fall sumb na di ñaan suñu borom may ko carton ak wër ba mu yeggale ko ak xalifaam bu baax bi di Serigne Bada Assis di ñaan suñu borom yagal leen fi comme ni nga ko waxee léegi rek mom day wajal jébbali adiya bu ko noppé day andat ak Serigne Bada Assis mom it ndax andat ak mom parce que Serigne Mortala di Serigne Abdou Rokhaya mi nga xamne moy mooy seen xalifa mooy seen mooy juróo ñu jébbal ko adiya ji kon bu ko defé dañuy wacce fofu kaddu yi ba ci kanam man toujours dama koy wax sëñ am di xarit day day royukaay ci man xamul tax muy royukaay ci man mooy boo xoolee fa mu dëkk ak li muy jëf te li gën a bon nag ñu ne ab baay faal lañ yaakaar sëriñ bi ndogu yu ñëw tëbës gi jot ñu ne sëñ am di xarit joxe na nangami góoli wala sëñ sëñ am ni muudu mbenn def na nangam yow nga ne ab baay faal nga sëñ nangam nga yaakaar mu bir ne la loolu ngay isati ci sa téléphone wala loolu ngay def yow leer na la li ñuy def lepp su ben deureum demu ci war ngaa sétat sa bop li gëna bon nak moy nga ni ab bay Faal nga koor gi ñew ñett am am ko am dolem am ko am alalam waye ñaar yëpp nga am sa doole defo ko ci nga am sa alal defo ko ci amna ñu ñoo ay bay Faal lañ ñi ngi Sénégal gi tok koor gi mëna naa jeex ba koor gi jall duñ fi jaar dañ lay wo téléphone yónnee la wala jaar sa sëñ mako barkelo sa barkelo barkeeloo ngi te li gën a bon nag mooy nit ki bis bu demee ba wujj suñu borom ñu tiim ko ñu tëral ko mbooloo mi toog buñ koy seere seere suñ koy seere war naa doon seere soo xam ne jëf la joo xam ne moo ko jëfoon waaye ñu tiim ko di ko joo xam ne jëf seere lii ñu koy seereel da lay bër jëf jii dañ koy wax di waaye lii doonut jëf joo xam ne moo ko jëfoon kon boog nañ góorgóorlu baax nga xam ne yoon moom li nekk day jaay kuy jaay nag am njëg boo jëndee da nga am kon baax a baax sant nag bu baax taalibe yi ndax lu fi nekk taalibe yi fi nekk kon ñun lu ñu war a def rek bala ñuy def dara war nañoo jiital taalibe yi ndax taalibe yi ñoo ñu kàttanal ba liñ bëgg ñu di ko am ñu man kon koo xam ne nag bu amee nga am kon nañ leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal bu baax suñu borom gën leen yokk gën leen dolli képp koo xam ne amoon nga yéene ñëw wala nga def ci saw ñax wala nga ñu ñaan yàlla na suñu borom faj ñoom ñëpp koo xam ne andi yàlla na suñu am na ci loo xam ne tamit maa ngi koy gën a soññee bu baax a baax mooy ñu man ko doon benn kër gi bu ñaari kër genn kër la nañ fexe ba bennoo boobu mu bañ doon ci ay ci ay wax ñu di ko jëfe suñ bàyyi ba ci loolu la ñu loolu ñu suñu bàyyi ba xeertaloon nag nañ fexe ba kenn dox suñu diggante nañ góorgóorluwaat bu baax taxaw ci kër gi man de fii yéeg maa ngi nooy di ànd ak sama xel kenn mënu maa jaxaseeg samay mag kenn mënu maa jaxaseeg samay rak lu ma nar am ci lu baax te bëgg mu ko ñoom yàlla bu ma mel ne daal li sëriñ bi wax mu bàyyiwaat ko xel bu baax a baax mu doon loo xam ne ñor na ko lool te ñor na mboolem njaboot mooy Sëriñ Abdou Aziz bi mu fi nekk mel Sëriñ Abdou Aziz rek fi nekkoon fi jógee nag Sëriñ Abdou Aziz dañoo bëri bu kenn ku nekk jàpp ne ndax la ko tàmbale sëñ Bada mii fi nekk ba si Sëriñ Abdou Sakkour mii toog jaat kenn ku si nekk xam na ne li ñu war a jëfal sëñ Bada lañ ko war te bu fekkee ñi féete sëñ bara dañ ne sëñ bara la ñu xëyal wala moom la ñuy kontal ñi féete Cheikh Omar wax loolu moom mais dina bëgg ku ko xëyal te te te du ko ngi noonu seen na moom mu mel ne njaboot gi lépp day benn ndax moom nii euh, toogaayam bi taxul mu koy wax te it ñi nekk ci kër gi war nañoo bàyyi xel loolu bu baax a baax bëri na rakkam yi lépp lu mas a xew ci kër gi wala événement bu mënu doon dana am pas-pas jël lam leen leen ci bërta dox jàppale leen ko te xam ne moom moo a def kon taxawaay boobu yàlla na yàgg moom lañ fas yéene yóbbu si Ablaye Fall Ndar mais si ñëpp roq ya si njaboot sëriñ mu suñ jëf mbokk yi ñu topp si réew mi ak si bitim mu mel ne noo ngi toog ak nii sëriñ Salaam mu sëriñ Abdou moom sëriñ Mor Talla moom maam Cheikh Rahim waaye sëriñ Amdi Fall it moom sëriñ Abdou Aziz di rakkam moom it mi ngi nii toog si wetam ak mbokki bi yi nga xam si nii eh, ñoo ànd ak moom liggéey bi nga xam ne liggéey bi Ibra Fall la eh, te sëriñ bi yàlla dogal it mu di si eh, def lu am solo ndax it ni ko ñëpp di defee sëñ Cheikh Mor mee di magam muy léppam nee mu koy defee di dajale ay addiyam di ko jox magam ju baax jii moom méet noonu lay dajale ay addiyam ànd koog taalibe yeeg soppee xarit yi di ko jox magam ju baax ji di Seydina Aliou Fall moom Cheikh Abdou Aziz sëriñ bu mel ne bis bii bokk na si bis yi nga xam ne mën nañ ne bokk nga si ñi ko taxawal ah, ban taxawaay la si sëriñ bi am ak mbokki taalibe yi nga xam ne uh, waxtu woo wootee rek faw ñu bàyyi lépp lan jàppoon ñëw ànd yow ba ba sa li nga xam ne moom nga bëgg te yéene ko si sa sa kër wéjur wu tedd wi uh, nga amee ko ni nga ko bëggee auzu billaahi mina seytaan rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiina ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare sëñ Ibrahima ak suñ Sayer Loum Baye Fall ak Baye Fall seen boor ñu ngeen àndal ñëpp rek di leen sant it seen taxawaay bu rafet bi ngeen xam ne taxaw ngeen ko ci liggéeyu kër Cheikh Ibrahima Fall bi di jiite ci suñu nuyoo it sëriñ Abdou Rokhaya Fall mi nga xam ne moo fi toogal sëriñ Mor Talla Fall e, di ci toftal suñu buntu muy sëriñ Aliou mi nga xam ne mooy jëwriñu sëriñ Abdou Aziz ak jëwriñam Cheikh Mor Talla ak mbooleem njaboot gi yëpp di siyaare ka nuyu sëriñ Amdi Khady Fall mi nga xam ne moo toog ci suñu wet di nuyu mbokki taalibe yëpp e, liggéey bi it e, comme ni nga ko waxee léegi rek. sëriñ bi taamu woon fukki fan yi koor gi ci yërmandeem ak njàpp ndalam ngir taalibe yi man fu waay nekk man fee daje euh, lu waay mën a màjjaal yi indi euh, ñu mën koo boole dajale ko dem jébbal ko suñ sëriñ bee nga xam ne moo fi nekkal sëriñ moo Talla Fall di suñu waajur di sëriñ Abdou Rokhaya Fall euh, biñ ko jàppee léegi it am nay at. waaye ñu ngi ciy taxaw taxawaay boo xam ne taxawaay bu am solo la te ku gis liggéey bi ni mu tàmbalee woon ak fii mu àgg nga xam ne liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall rek moo wóor euh, liggéey bi kawe na lool nit ñi am nañ ci pas-pas maa ngi koy wax gaa yi léegi nee naa leen mbooloo mu bari am na solo amul solo waaye li ëpp solo mooy ay xol yu nangu te fii moom xam nañ ne xol yi fi suñ boroom dugal nangu nañ lool waaye noonu rek la mën a demee. ndax euh, alal ju ne fa dugg na xol ba mel rek noonu la xol yi ñay joxe mel te sëriñ Abdou Fall bi mu demee ba gisatut waajuram sëriñ Mor Talla euh, ginnaaw sëriñ Sidi Fall la sos ndog yi nga xam ne moo fi moo jógee kër sëriñ Abdou Fall doon dem kër sëriñ Touba muy kër sëriñ Mor Talla Fall lu jiitu loolu it bi fi maam Cheikh Ibrahima Fall jógee sëñ Moudou Moustapha Mbacke daan. taal ay ndog di ko yóbbu boobu sëñ Mor rek moo fi nekkoon doomi maam Cheikh Ibrahima Fall di togg ay ndog moom itam ko yóbbu nga xam ne loolu lu yàgg la ni ko Cheikh Ibrahima ni ko sëñ Mor Talla daan defee nag ginnaaw sëñ Mor Talla sëñ Aliou daan def waaye bi fi sëñ Aliou jógee sëñ Abdou Fall loolu moo ko tàmbaliwaat doonoon si jàmbaar lool ndax euh, lii ñuy togg ni ko sëñ Abdou Fall bàyyi woon yokk na bu baax waaye façon bi ñu togg moom ba tey moom lañu ñu togg mooy nii ñu koy def nga xam ne ndawal la rek ak la cee dem loolu Cheikh Abdou Fall moom la fi mujj a def eh, at mooma bañ koy tàmbali ñu bari dañoo tiitoon sax ne ah lii mbaa dina mën a àgg waaye ci baaxu sëriñ bi ak wóolu gum wóolu ne Cheikh rek lay liggéeyal te nangu na li muy liggéey mu ne nañ ko def noonu waaye bañ ko defee noonu eh, Cheikh Ibra da ko caa gàttandoo ba loola liggéey bi yokk na waaye it soppiwuñ toggin te it lii yaakaar naa ne mënuñ koo soppi moom mën naa gën a bari waaye soppeeku moom mënta am kon loolu liggéey ba nga xam ne sëriñ Abdou Fall doxoon na ci digganteem mag sëriñ Touba sëriñ Aliou Fall mii nga xam ne moo ko fi nekkal ak rakkam yu baax yii ñoom itam ci tànk yooyu rek lañ am lépp loo xam ne taalibe yi jox nañ leen ko ak seenu ñaq ñu boole ko bu fukki fan yaa ñu woo taalibe yëpp bañ dajee ci kër gi ñu xamal ne leen ni lii la lii taxoon ñu leen woo lii lañ leen doon dooyee liñ leen doon laajit nañ leen ànd bu nu àggee ba nga xam ne ki fi nekkal moom moo fi nekkal sëriñ bi ñu teg ko ci ay loxoom waaw loolu daal lañ nekk ñu ngi ñaanal taalibe yi nag ndax wax dëgg yàlla xol yi nangu na ndax saa bu ñu wootee ñu ñëw bu nu amee dina ñëw bu nu amul dinañ ñëw kon ni ngi koy daggaan di ko ñaan Cheikh Ibra bi nga xam ne amuñ lu dul moom yàlla na leen saaboroom defal ak yokk ba li ñu yéenee liggéeyal sëriñ bi lépp saaboroom may leen kàttan ba niñ ko bëggee ñu koy defee noonu saa su nekk te seen sago jërëjëf euh, jërëjëf sëñ Abdou Salam mu mel ne kàddu yi passé foofu si noonu ko sëriñ bi euh, daan doxalee waaye ñuy siyaar baax na sëñ Abdou Lahad Fall mi nga xam ne day genn wàll di doomi sëñ Cheikh Fall Assou Ndiaye moom Cheikh Modou Moussa Fall moom it ñëw nii fas yéene ànd ak bi si liggéey bi euh, sëriñ bi mbokk yi nga xam ne yàlla leen boole ñu yaakaar sëñ Abdou Sis bu sëriñ bi dee soññee kaddu yoo xam si pour lu leen mën a boole ndax wolof yi dañuy war a wax ne booloo mooy doole ba liggéey bi waxtu wu ñëwee te ak yeneen yu dul liggéey bi ñu am si taxawaay daay dafa mel ne Euh, njaboot gi bis bii rek lañ gën a jàpp si yeneen bis yi lan la sëriñ bi soññee si loolu. waa liñ ciy soññee de mooy sëriñ sëriñ së sëñ sëriñ Touba bi nga xam ne moo fondé yoon wi te xàllal na ko loolu la jàngaloon ay taalibeem loolu it yoon woowu it la wanoon mooy taalibe bu ci nekk jàpp sa moroom ba mu mel ni moo la gënal sa bopp euh, sëñ sëñ Mortala ak sëñ Ibrahima Lo ak sëñ Modou Mamoun taw maam Cheikh Anta sëriñ bi da leen a mas a woolu njaareem bi ñëwee ci keesu boppam mu tegal leen ab bool guddi eh, bi mu leen tegalee bool daan leen dama bëgg ngeen xewlu bool ba nag eh, cere la woon am am na dogu nekk ci digg ba waaye fan ko doon xewloo lëndëm na lool eh, ñuy xewlu di xewlu ku ko ci daj rek boox ko sa moroom ku ko ci daj boox ko sa moroom ba lañ doon xewloo jeex ñu bàyyi fa dog ba bin bin jógee sëriñ sëñ bi niit bi ne woowaat leen ba ñëw mu ne leen lu ngeen ci jublu li ngeen fi ba laaj ko ne ko ah man damaa foogoon ne sëñ muudu maamu na ko waroon a xewloo moo tax ñemewuma koo jëfandikoo mm-hmm. mu laaj sëñ ibrahima loo sëñ ibrahima loo dama ne damaa foogoon ne sëñ mortala ko waroon a xewloo mu laaj mu laaj sëñ muudu maamu sëñ muudu maamu daan damaa yaakaaroon ne sëñ ibrahima loo ko waroon a mm-hmm. sëriñ bi bëggoon ci na kenn ku nekk na kenn ku nekk yéene boppam li bi yéene moromam ba mel ni boppam da ko da ko gënal moromam waaw lool loolu la sëriñ bi jàngale woon mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci ëttam te it munuñoo munuñoo teggi jàngaleb sëriñ bi munuñoo aw yeneen yoon it wudul wu ñu sëriñ bi xàllal kon loolu moom taalibe yëpp rek nañ joxe noonu te xam ne it li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg bu masayer lu mi yoroonu milliard du tax mu man ko ndax bu mënee joxe it xëy na du mën a yanu ki mën a yanu a togg ki mën a def lee munut a def lee kii day man lii kii man lii kii man lee rek ñu boole kon nga xamne aduna mom bolo rek te lol sax lañu suñu borom digal nañ bolo japp ci bi nga xamne kon lol mom non rek lañ mëna def am ndam ci liñ bëgg kon ñing ngi ñing ñu soñu suñu bop di ci soñu talibé yépp li nga xamne non lañ gis suñu kilifa yi diko def ndax eh, ñun ñi de amuñu frontière ñun ñi nga xamne ñoy jëwri ni amuñu frontière suñ ba da waxtu ne la koy wo bu mako soxla waxtu ne la fay dem suñ cheikh mo nonu sëñam limi bu ñëwee ca fekkuma fi moy borom kër gi waaw ñoom buñ xoolee loolu rek kon yoon wi dana leer nañ ab ab tegale nag bu ña jiitu jubee moom la ca topp jubal ko du jafe te yàlla defal nañu ci sutura bu baax a baax ñi ngi ñaan saytaane bañ amu yoon ci digg bi nag ba li nga xam ne yéene nañ ko ànd di ko liggéeyee sëriñ bi ñu man ko ni ñu ko bëggee barke Cheikh Ibrahim Fall. Ah, jërëjëf mbokki talibé yi mu mel loolu lañ leen jël si loon si sëriñ Abdou Salam Fall mii di bokk si jëwriñi kër gi waaye di jàmbar joo xam xàmmeewul taalibe bi jébbalu ci mom ak bi jébbalu sëñ Bada wala bi jébbalu sëñ Abdou Sakor ndax euh, gone yi nga xamné ñom la tuddu légui lélé day tuddu ba xaju guddi sax ñew yéko nako ne dañu bëgg dem bërepp sangam mu juk and ak képp ko xam si am nga si ay moy mooy ànd yow dox ko safara ko ba loolu dem na ba si euh, Serigne Cheikh Mossa bari na yité yu mi dox si ak njabotam mom mi mokoy doxale ndax bari na fo xamné défa bu fay dem ñun ñu and kon noo ngi barké mam Cheikh Rafal tax way bobu nga am ci sa biir kër bay gi suñu borom katanal la ba fa sëñ Abdou Cissé woon ngeen tàmbalee fa ndax bokk dama koy faral di wax lu bëri yaa sëñ ngeen si missionnaire nga xam ne sëñ sëlee ni liggéeyloo ndax tey bëri na yoo xam ne ngeen ak ñoom ba bis bu yàlla sàkk chaque jour ñuy ñëw fii di leen fréquenté si loolu nag dafay mel ne jaxasoo ak gi ngeen jaxasoo ñoom la ndax léegi si kër sëñ Cheikh Mor bàyyi nañ fi waa daayira Jazbul Murid si jiitul sëñ Amdi mu sëñ Amdi mu sëñ Amdi Yaasin ñoom it wax dëgg ñoom ñëpp ñoo nga fa ngir ñëw si bis bi nga xam ne tey it boo ko doon xool si yoon wi yombul kuy jëbale ay addiyaam rek njaboot ñi ngeen bokkal Cheikh Ibra Fall ñëpp comme ni ko Sëñ Abdou defee nga xam ne tey su ko neexoon jug dem sa Baay Faal ko fa ñu toggi jay ndoog waaye xam naa ne fii ba ba ngeen yóbbu liggéey bi sa Sëñ Abdou roqee du tàqali ko yéen Ablaye mi nga xam ne day jëwrin di euh, mu ànd ak moom liggéey bi moom suñ Moodu Seen mais Sëñ Ablaye da ngay ñëw rek euh, soññewaan mbokki taalibe yi nga xam si nii rek euh, yéen a bokk liggéey bi ngir bis bii nag doon bis boo xam ne ni bis bu ngeen di waajal la ndax it jamono toll foo xam ne moom lépp looy liggéeyal Cheikh Ibra rek boo ko waajalul rek bu la bettee dana la man tey nag santaat Cheikh ibrahim Fall Lamp bu baax baax kon bismillah dañ lay jox rek nga ñëw ci turu sëñ bi rek bu ko defé nga sant mbokk talib yi ak liggéey bi nga xam yeen ko doon liggéeyal sëriñ bi te ngeen and ak mom nak ba fam leen ko defal ngeen xam li ngeen ko doon jox fi la leen ko defal. assalamu alaykum ñu ngi nuyu ñepp rek di siyaare ñepp rek di jiital ci nuyoo bi sëñ Abdou Salam Fall di ko ñaanal fanu gudd ko wér di nuyu sama mbokk bay Fall yi mbokkoon liggéey bi ak sama mbokk Yaay Fall yi di leen wax lu doon liggéeye jébbal nañ ko serigne Abdou Salam Fall mu nek lo lu am solo la ndax yoonu murid dafa nek yoonu Baye Fall dafa nek lo xam ne si nekkee mom tanki kanam rek lay man ko tanki ginnaw ñi commencé wat liggéey bi nak bis ni nga tay jëmale dewen di ñaan yalla lepp luñ ci def rek serigne bi fay leen ñu bopam ndax nga xam fiñ toni manam toll nii maanaam gaa sama gaa yi bi ñi nek jambar lool nekk jàmbaaroo ñu gën a takkaan déglu gën a laxasowaat gën a góorgóorwaat bu baax rek di ñaanal sëñ Abdou Salam Fall fanu gudd ak wér ba lépp lu ñu bëgg rek suñu baam jàppale ko gisee jotaay am solo bi ñu siyaar bu baax sëñ Aliou Fall mu sëriñ Abdou Assis Fall moom sëriñ Mortala Fall moom maam Cheikh Rahima Fall moom mi nga xam ne tey mooy jëwri ni kër sëñ Abdou Assis Fall gi yëpp ak mboolem ay rakkam yi nga xam ne si dañoo topp ci ginnaawam parce que yéene jébbal liggéey bi nga xam ne si moom la war a jébbali waajuram di sëriñam di sëñ Abdou Roqee Fall ñu ñaan yàlla sëñ sëñ faal mu yàgg fi lool te wér ñaan ko li mu naal waajuram bu baaxoo te naal ko maam yàlla na ko matal jëfam ak iteem lépp kenn ko ne xam na ko ndax boo ne sëñ Aliou sa xel du dem ci lenn dul alxuraanul karim wax naa ko léegi nee naa diina jëmu ko lislaam jëmu ko ak bokk jëmu ko waxtu wu ne mi ngi ci alxuraan mi ngi ci tur yàlla mi ngi ci xasiday sunu borom tabaraka wa taala yi nga xam si moom la Serigne Touba tagge woon Serigne dina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ñoon la ni siyaare mbooleem koo xam ne da ngaa sol saw daal rek te lislaam ñor la tey nag ñu am ñu nekk ci jataay bu am solo jataay boo xam ni wax naa ni kii nu feggool moo sëñ Aliou Fall sëñ Aliou Fall nag ñu ngi ko tuddee sëñ Aliou Fall Mboor loolu moom la sëñ Abdou Aziz Fall tuddee ñu ngi ñaan yàlla yàlla guddal soo fan te wéral la ndax sa yéene ñun ñëpp xam nañ ko mooy fexe ba buntu ko sëñ Abdou Aziz bii lépp lu ko war ci kër maam Cheikh Raye Fall mu di ko def waxtu wu ci ne yaa ngi ci addi yi yaa ngi ci liggéey bi ñoo ngi ñaan yàlla mu sa taxawaay yàgg kon sama jox sama jëwrin mu yëkkati kàddoom ñoo ngi ànd nag ak euh, Lamp Fall leeral Touba nga xam ne wax naa ni ba ndog yi commencé ba léegi sëriñ bi seen loo takk seen digg bëggunu lekk bëggunu naan li nu bëgg rek mooy buntu kër bi lépp lu fi jàll ñu teg ko ci fi ñu ko war a teg jaarale ko fi ñu ko war a jaarale waaye jërëjëf mbokki taalibe yi ñu topp si réew mi si ak si bitim réew noo ngi nii toog ak eh, jëwriñu Sëriñ Abdou Sis Fall ji muy mu sëñ Mortalla di ko ñaanal bu baax suñu borom yàggal ko fi ba jataay bii mu toogee eh, la way juróom wa naaloon mu yeggal ko te naal naale boppam barke maam Cheikh Ibra waaye nag noonu la ko àndeek mboolem rakkam yëpp nag ñi nga xam ne ñoom la bokkal ñoom la bokkal eh, Cheikh Abdoul Aziz Fall di ko ñaanal baax nag mu mel ne waxtu wi nga xam si ni tey di fukki fan yi si la war ay rakkam ñëw di ko jébbal seenub liggéey mu boolee nag liggéeyub rakkam yooyu ak liggéeyu boppam dem jébbal ko way juróom wee sëriñam bee di sëriñ roq Rokhaya Fall mi xalifab sëñ Mor Talla sëriñ bi mu mel ne bi nga wootee sa rakk yi nga bokkal si Abdou Ciss wuy si na la yan kàddu cant ak ngërëm ak taalibe yi nga xam ne ñoo jël seen yaakaar def ko si yow lan leen sëriñ bi gën a ñaaxaat waaw bismillahi mbokki taalibe yi ñu leen nuyu di leen siyaare di leen jërëjëfal baax baax di leen sant baax baax di am xol bu sedd lool ci mbooleem taxawaay yi nga xam ne eh, mbokki taalibe yi ngi koy taxawaay taxawe ñu ngi koy rafet bu baax di ci am xol bu sedd lool di ñaan yàlla mu nangul ñu mbooleem jëf yi rek te fulal ñu ko baax baax laqal ñu ko fukk yàq eggul dëppale ñu ci ngërëmal Serigne Abdou Fall baax baax Eh, yàlla nañ ko gën a man baax a baax a baax déwén yu yàgg a yu yàgg yàgg rek te teñ teñ teñ di ko gën a jekku faaw rek ci barke maam Seex Faal suñ xol seet na lool taxawaay yi rafet na lool waaw at mu ne rek wax dëgg fa yàlla lépp lépp day gën a dolli ko waaw ñu ngi ciy sant yàlla baax di sant ñëpp rek di ci am mbégte xol bu sedd rek ñaan yàlla ñu di ko gën a man faaw rek te xéewal yi di gën a dolli gën a yaatu te barkeel baax baax sant nañ ñëpp ñu ngi jërëjëfal sëñ Cheikh Mor Fall ak sëriñ Abdul Khadim Fall ak sëriñ Abdul am sëriñ Basiiru Fall ak sëriñ Abdou Salam Fall seeni taxawaay rafet na lool am nañ mbégte xol bu sedd ci ñoom lool ñu leen di sant di leen ñaanal ngërëmal sëriñ Abdou Fall baax baax yal nañ ko bokk am ñun ñëpp rek te yàgg ko liggéeyal bu baax baax ah, te am ay ay ngërëmam bu baax a baax rek sant nañ baax jërë ngeen jëf alhamdulilah. yow mbokki talibé yi mu mel ne kàddu yooyu la sëriñ bi doon jàllale di sant rakki boppam yi mu bokkal sëñ Abdou Sis waaye jiital si nag sëñ Cheikh Mor ak mboolem njabootu Cheikh Abdou Sis Fall gépp rek sëriñ bi leen di sant mi leen di gërëm nee na xolam seet lu guy xam naa ne bu sëñ Cheikh Mor ñëwee dina gën a yaatal loolu. moom daal xolam seet na kuy mu mel ne lii lañ leen jëltaloon sëriñ bi euh, yan kàddu yi soññee rek la sëñ bi defaat. waaw xanaa ñu di ko bàyyi xel fuñ toll rek di ko bàyyi xel di ko teel a waajal bu ko defee bu yegsee rek dañ koy mën a jekku nañ ko bëggee buñ ko dee bàyyi xel rek lépp loo xam ne da koy teel a bàyyi xel ba bala balaa yegsi bu yegsee rek day fekk nga man ko ni nga ko bëggee waaw kon ñu koy kiyee noonu rek ñu koy waajalee noonu rek. jëpp jëf joo xam ne ñu ngi koy jëfati daal buñ buñ ko dee teel a waajal balaa yegsi rek bu yegsee day fekk ñu ñu ñu jekk ko waaw jërëjëf taal yi yooyu rek lañ leen jësiloon si sëriñ bi di xalifab sëñ Abdou Ciss di ko ñaanal baax suñu borom yàggal ko fi te wéral ko si barki maam Serigne Fall mel ni daal nii lañ leen ko fas yéenee toppalee rek ba keroog ñuy dem fee sa sëñ Abdou Rokhaya Fall mi xel rangam galan ni na moo tax mu dëddoo àdduna fekki na Bàmba sotti na wàcc na aljana yi texe mas nay xibaar ak jébbuloom bay wax ne yàlla mi ko moom moo ko ne bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe mas nay xibaar ak jébbuloom bay wax ne yàlla mi ko moom moo ko ne bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe tegtal ko yoon wa ab murit di aw baraw pexem marit ba am ngërëm bari murit te dootu dee di tax texe yoon wa ab murit di aw baraw pexem marit ba am ngërëm bari murit te dootu dee di tax mu daldi dem tey ba Dakar ngir dégg Bamba di fa xaar set na sëriñ tey ba daqaar cim jàng lay pexe mu tëdd ku di listixaar ba mu xëyee ba ti subaar sëriñ maxtaar turee fa leeram ga ko ay pexe maxtaar turee nga yori coor yanu ko jëm Mbàkke Kajoor Cheikh Bamba yónni ko ca ci xibra topp cay fexe ba gis fa seex aadama gey sànni miram daldi ca ngoy mu wan ko bamba mbar mu rëy cheikh bamana ko fo foofaxe mu wax ko dagal ya fa mom cheikh bamba wan ko la fa mom mu xamni gis na ka ko mom mu daldi fam miram joxe ma wax la bis ba ndax muur ñaar. sëñ ma seer tey sama xol dafa sedd sama yaram dafa daw ndax kii nga xam ne yàlla dogal na mooy génn muy sëriñ Mor Talla ñëwoon ci magam ju baax ji dénk ko liggéey bi tubarkalla waaye xam ngeen ni nag yi bi nu génnee ak soble si ak pompe terre bi danoo yenu diwlin gi topp ci ginnaawam sëriñ bi nan ko génn nan ko may mu génn seen waaw tubaarkàlla wallaay wallaay dëgg la dëgg la ak soppe yi ñu ànd ci nag ak daayira daayira bi nga xam ne si nag ah mooy kuréel bi bu mag bi nga xam ne si waaw tubaarkàlla macha allah damay wax ni waxtu bu ci ne liggéey bi ñoo ngi koy feeñal ñu may sëriñ bi rek bu ko defee sëriñ bi génn tubaarkàlla ñu ñaan yàlla yàgg mu yàgg lool yàlla sax lool sëñ ma seer lii ko gis image yi ko gis war ngaa xam ni ñii lu leen waay jox ñu yóbbu la ko ñu yóbbu la ko seen kilifa ku baax macha allah tubaarkàlla képp àndandoo leen génn waaw wallaay ah waaw waaw dëgg la wallaay wallaay tubaarkàlla hmm. dëgg la uh-huh. waaw xoola gerte gi xoola gerte gi. bàyyi leen sëriñ bi mu xool gerte gi may leen sëñ bi mu xool nan may sëñ bi mu xool gerte gi nan may sëñ bi mu xool gi Cheikh Mor yàlla nga fi yàgg lii nga jëb ba sama yàgg sa rakk yi tubarkalla waaw waaw nan nan nan ko bàyyi mu xool teraanga ji kii fi tax sëriñ Modou Mbaye Touba tey xanaa lii seeram daw na laa ilaha illallah dama la ni sëñ Cheikh Mor yàlla fanam waaye nag magam ju baax ji sama borom yàggal ko ci kanamam xam nga ni jëf jii jëf jii mu jëf bu ko yaay sama lépp gis na ko gëm ndax jël na léppam jox ko ko jël léppam teg ko ci kanamam ni ko lii daal laa ko maa ko sëriñ koor waaw dëgg sëriñ Cheikh Mor Fall ci jëf ji rëy ji ak mbooleem rakkam yëpp yàlla na nga daje ak tawfeexi sëriñ bi ak ndimbalam kon sëriñ bi ne bisimilah bisimilah bisimilah ñu dem kër sëriñ ba bisimilah sëñ salaam kër sëñ benn jëm waaw mais de yoon wi yoon wi yoon wi seex moo la ko dénk ay kàddoom seex moo la ko dénk ay kàddoom waaw dëgg la walaay cey lii lii sama yaram daw na lii daw na sama yaram daw na seex Abdou Aziz tëdd tey xolam seet na guy yaakaaram dolliku seex Abdou Aziz fa mu nekk xolam sedd na yaakaaram dolli ku na yàlla yàgg Fall dëgg la waaw waaw sëñ maam Lamp Fall moom Daaru Marnaan ay waay ndeysaan dëgg la dëgg de nanu may bi nanu may bi sëriñ bi nanu may sëriñ bi waaw gaynde daaru ma naan nga maam lamp moom sëñ bas xadim sëñ bas xadim mbóoj barke borom Touba waaw ci lay jëb ci lay jëbale fii dëgg la wallaay wallaay ah waaw ah dëgg la ah ah waaw dëgg la uh-huh. wallaay waa sëriñ bi ah sëñ man sama dafa daw mag ñi danoo delloo si démb waaye lii nga xam ne Serigne Touba ko digaloon maam Cheikh Rafal maam Cheikh Rafal di ko jëf-jëfin wu rafet tey jii njabootug maam Cheikh Rahima gi ñëpp kenn ku ci ne yaa ngi koy jëf waaye lima ma gën a neex mooy nag wax dëgg yàlla Serigne Mor Talla Fall yàlla yàlla dolli leeram Serigne Mor mi togg ndox yi feete xuru Mbakke di ko yaru di ko yóbbu ah booba lii doy na waar lool waaye nag lii rek la doon jëmbat ngir mu yaatoo ngir mu yaatoo nii tubarkàlla. jërëjëf sëriñ Bara. ci ginnaaw ànd ko xarit yi. wallaay ak soppe yi. ku geesu da nga gis suñu xaadim Fall. dëgg la suñu Abdou Salaam. dëgg la suñu Basiru. Mm. topp seen ginnaaw mag ju baax ah, topp seen ginnaaw mag ju baax seen Bara Cissé. nanu yaatal. na ñu doxal ndax kilifa gaa ngi nanu yaatal kilifa yaa ngi agsi. kilifa gaa ngi agsi. na dox sëñ Bara kilifa yaa ngi noonu yegg si kilifa yaa ngi noonu ak si kër sëñ Abdou Rokhaya ñoo ngi noonu ak si kër sëñ Abdou Rokhaya waaw waaw waaw waaw léegi nag ñu maye teelu rek tuuti Baye Laat Ndiaye moom sëñ Mbacke Ndiaye waaye démb waaye démb it ñu gis jébbale bu am solo mm-hmm. sëriñ Bara def ko mu sëñ Tall Yacine kon njaboot gi muy njaboot sëñ Mor Talla mm-hmm. ñoom ñëpp àndandoo nan doon wenn say mm-hmm. jëm si seen kilifa gu baax gi mu sëñ Abdou Rokhaya wax nga dëgg sëñ Bara Tall Yacine waaw démb la def moom it dëgg la wallaay waaye nii Cheikh Mortal def dëgg la fii may wax yow maa ngi yegg mi ngi noonu toog mi ngi ne toog Serigne Baye nii toog Serigne Mbacke Ndiaye kon ñu jege rek kon ñu jege fii bu ko defee ñëpp wàcc seen i carte déglu ñu ñaan yàlla li yàgg lool sëñ Bara mooy mooy nuyu kilifaam di nuyu sëriñam sëñ Abdou Rokhaya Fall waaye Serigne Mortal a ngi noonu jëwrinam moom tam mi ngi nuyu waajuram waaye mi ngi nuyu sëriñam ñoo ngi ñaan mu yàgg lool te sax tubarkalla di ñu may sëriñ bi mu toog ñu aneer samay sëriñ bi mu toog nanu arrière te mu nanu te mu nañ fal ma dégg dem ma ñaxane lii yàlla na yàgg ñoo ngi ñaan yàlla na ko yàgg woote ñu yàgg ko ma dem bu ko defee ñu gën a yaatal ñu gën a yaatal jataay bi ku nuyoo nga génn arrière may sa morom mu yo ku nuyoo nga arrière may sa morom mu nuyoo Serigne Abdou Fall yàlla nga fi yàgg amiin yaa rabbi amiin Serigne Abdou Fall yàlla nga fi yàgg amiin amiin Serigne Bada ñëw na ak mboolem njabootu Serigne Abdou Fall gi ñu ay rakam def nañu daan def mhm. def nañu baaxo daan def mhm. ñu fekk seen bay fekk seen sëriñ jërëjëf seigne Bada seen jëlul comme Cheikh ibrahim Fall Lambaal Mouridina waaw wax ji matna matlena mat le na tabarkaala waaye sëriñ baa ngi noonu ñu ngi doon ba pare nga genn ku siyaare pare nga ñew ku siyaare pare gennal sëriñ Mor nee assalamu alaykum wa rahmatullahi taala barakatuh barakaatu nee Abdou Rokhaya Fall nee na ñoo ngi lay nuyu bu baax ñun njabootug sëriñ Abdou Aziz Fall ci njiitul sëriñ Aliou ak mbooleem ay rakam nee na delsiwaat nañu fii di yeesal sunu njëbbal ci yow nee na di yeesal sunu taalibi ci yow nee na di bët yan doon xoole sëriñ Abdou Sis Fall nee na bët yooyu rek lan lay xoole nee na ñoo ngi lay ñaanal bu baax sunu borom yàlla yokk saw fan te la ba àggale sa yéene yëpp ci barkeb Seex Mortala Fall sa waajuru baax wa nee na day Fall nee na li nu xam ci sa jëmm neena na bu nu ko waxee nee na waar lool nee ndax loolee ñu xam ci yow dëgg la gu a wér nee na mboolem ñu ñu toog fii ñëpp mën nañ ko seere nee na faal yow bëggoo dara nee na heure woote wala ngay soññee lu jëm ci sëriñ bi rek ngay soññee lépp lu des nee na ci ñun rek la dese faal waaye yow day faal matale nga lépp nee na ku sa lewet gii bu moytul de dana yaafus waaye nee faal ñun ñii teew ñëpp ñoo ngi lay ñaanal saw fan gudd te nga ànd ku wér ci turu sëriñ Bada ak mboolem rakam yëpp nee na danoo ñëwoon tey don andi liggey bi ci yow te xamni fi lu nu fi def japp na ni ñun ñoko wara def ndax da nga andawon ak sunu wajuro ne da nga joxon sun Isis Fall sa bop te wo ci dara ne ñu bare bare bare ginnaw sun Isis nan lay do la ragne ndax nee na nangu woon a xëcc dara nangu woon a yóotu dara nangu woon a feeñ dara lépp loo am sëñ bi rek ñu ko nga defoon ko mag defoon ko bàyyi toppoon ko topp gu wér kon faal ñun loolu buñ dee ay ndaw tamit am na luñ ci xam kon ci turu sëñ Aliou liggéey bi mi ngi toll ci fukki nag ak juróom benn ak fukki gàtt ak juróom ñett ak ñeen fukki saakuy soble ak juróom ak ñetti saakuy pompe terre ak fukki bureau diwlin ak ñaar fukki ginaar sëñ Aliou moo bu ñëwee nan la ko jébbal te dina tuubal bu baax a baax te dina jégluwaat bu baax a baax nee sëriñ bi nee ñoo ngi sàkku ci yow nga ñaanal sëriñ Bada Fall mii mu yàgg fi lool te wér ndax ñun sëñ Assis Fall lañ koy xoole lépp loo xam ni bu fi sëñ Assis Fall nekkoon ñu ko defal buñ ko gisatul ñu gis ko muy sëñ Aziz suñ ko defalul la ñuy wax kat kon noonu rek lay deme ci ñun wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Cheikh Mor Fall moom sëñ Abdou Aziz Fall sëriñ Abdoulaye Fall moom sëriñ Mor Talla Fall mi ngi lay yónni ci sa kessa serigne serigne ali Fall mom serigne Abdou Aziz Fall dila xamal ni yeen jabatou serigne Abdou Aziz di ngeen joxe sen bop wa loolu bëgg na ci yeen ndax kër gi kër serigne mortala te kër serigne mortala len lenn kenn jiitu ci kër sëñ Abdou Aziz kon taxawaayu serigne ali Fall ak ay rakam ak njabootu sëñ Abdou Sis Fall gépp nekk ci ginnaaw sëñ Bara mii nee ni ngeen déggal sëñ Bara débbal déggal ni rakk sëñ Abdou Sis Fall yëpp nee na sëñ Abdou Fall rafet na loola te ñaan seen ànd bi saa borom yàggal ko bu baax di leen ñaanal fan wu gudd waa ànd ku akuk man ak mboolem njabootu Sëriñ Abdou Aziz gu góor gi ak gu jigéen gi waaye mag ñi ak ndaw ñi kon nag liggéey bii ngeen fi indi tey jii di liggéey boo xam ne ci ndogu yi la bokk ngeen di ki jébbal ko ngir jëmmi Serigne Mor Talla ne li ma leer mooy Serigne Abdou Aziz ci boppam xolam set na guy ndax lom masam liggey serigne bi rek moy lu ko gënalon kon bu ngeen gisee ki nga xamni moy sen kilifa di sen bay di seenub sëriñ wuutali ween toog seen yëpp la siis nee na kat ñun ñëpp dañ nañ suñu bëtt suñu xool set na ci guuy ñu ngi ñaan saabaram yalla yagal and bi te doli man gi ci daraje serigne mortala ci daraje Cheikh Abdou Fall serigne Abdou ci bopam xolam sedd na mi ngi rafetlu ànd bi mi ngi leen di ñaanal ak man ci daraje Serigne Mor Talla Fall ci daraje maam ma Rahima Fall liggéey bi rafetlu nan ko xol sedd na ci guy jërë ngeen jëfati loolu it Cheikh Mor sëñ koy teg ci loxol nga teg ko ci nga teg ko ci loxol sëñ Aliou tax ko ko nga xam ne daal xolam sedd na guy ay doom ngeen. ay nawle ngeen ay taalibe ngeen te indi ngeen joxe seen bopp dara dis kon jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nee na mi ngi nuyu Serigne Bara Fall mii nga xam ni moo fi nekkal seex Abdou Aziz ak mboolem ay rakam ci jëwrinam Cheikh Mor Talla nee na noo ngi nuyu mbokk taalibe itam nee di xamal ni day diggante bii daa gàtt nee na bi nu addi yi ak bi nu indee ndogu yi nee xam naa dopp weer ak dara kon nee na ku jëflu lu noonu na nga xam ni ak dogu la bëgg waaye xat na lool ci loolu ku def ci def yaar yi xat na ci waaye nag nee na koy jébbal Cheikh mortale mi nga xamni nun ñëpp moy suñu yaakar tay ak ëlëk ci suñu buntu Cheikh Ibrahima Fall nee na ñoo ngi ñaanal sëñ Bada moom mi nee na li Cheikh mort sakko nee ñu nu ñaanal ko fanu gudd lool ak ku wër ba yeenem mën ag ci liggey bi ci lepp lo xamni lu ñuy dox ci kër señ bi wax Cheikh Mor mu diko doxal jërë jëf nee ngeen nuyu ko ñëpp leen ñëpp taalibe yi sëriñ bi sant na leen ak njabootu Sëriñ Abdou Aziz Fall gi yëpp ñu talal mu ñaan mi ngi ñaanal sëriñ bi amin jërëjëf la ilaha illallah